watu sabbu naasu nee na li gën a yéeme mooy nit ñi dañuy jël kàddu yu ñaaw di ko teg ci seen mbokk doomu aadama yi wala yu te nee na loolu nag amul benn benn benn nu ma ko mën a tuddee loo xamante ni daal sanction amul benn sanction boo xam ne dal na ci ñi nga xam ni ñooy wax lu ñaaw jëme ko seen morom nee amul sanction wa yaqtulu insaanan insaanan wala yuaqabu ala na nit day rey nit wax nit lu ñaaw te loolu du ñu daan yëkkati daan teg ko ci kaw ki def lu ñaaw loolu nee na dañuy bàyyi rek mu sedd wa qaala alayhi salaatu wa salaam nee na sayyiduna Muhammad alayhi salaatu wa salaam nee na dawlatu tastaqaamu ala al-kufri wala tastaqaamu ala al-zulm mooy réew moo xam ni seen lépp dañ koo teg ci weddi seen lépp teg ko ci tooñ seen lépp teg ko ci defante lu ñaaw moomu réew ndax dina dëgër fa ida tamaada hada nee na bu fekkente ni nii la Sénégal bëgg a continuer fa yakunu sababan lil xurubi al ahliyati ah mais fan lay mujjee nee na loolu bu dee mooy doxu Sénégal dañuy mujj dem ci guerre civile te guerre civile baaxul fal qanunu fawqa al jamii te nag am na loo xam ne ñun ñëpp ko war a d'accord mboolem kuy jullit war nga xam ni loi islam bi mu teg nee na boobu moo ëpp doole lépp moo supérieur lépp waaye àdduna tam ni muy doxee loi ya ñu ca teg cheikh na cheikh naa ma ne nañu gëm ni yooyu ñoo ëpp doole ñëpp فنطلب من الحكومة kon ñu ngi sàkku ci gouvernement bi والدولة ak état bi تطبيق الحكم على كل من خالف nee na képp koo xamante ni def nga lu dul yoon jaar nga fu dul yoon wax nga lu dul yoon li àttee ci réew moomu nañ ko teg sa kaw هكذا تستقيم الدولة nee na noonu la état di taxawee noonu la état di avancé su état bëggee am am doole وبعد ذلك عفو من الشعب nee na nag ginnaaw loolu mi ngi tàkk sàkku ci population bi. wa bi. di sàkku ci jeunesse bi. an yatamasaku. waaye Cheikh naa ma ne waaye gaañ yi nañ leen ànd doon benn nag jot na de. wa yakunu yaddan waahidatan. Cheikh naa ma ne xiiroo beeg ŋaayoo bi amul njariñ nañuy jël sunu loxo ñun ñëpp ku ne tapp sa moromu loxo jot na de. wa qalban waahidan. Cheikh naa ma ne ñaanante beeg soxorante bi ci xol yi. amul solo nañu fexe ba sunu xol yi doon benn. wa nadaratan wahidatan ne ñu ñëpp nañu bokk benn vision nañu bokk benn objectif nañu bokk benn hëdëf fu ñu jëm Cheikh naa ma nee na Sénégal foofu la toll. bima fi salahul watan. nee na. bima fi salahul watan ci liy defar réew. lépp loo xamante ni dafay defar réew nañ ci am taxawaay bu dëgër dëgër dëgër. wa dawlati. ak état nañ ci am taxawaay bu dëgër dëgër. hubbul watani min al iman. ah sang bi ne. bokk na ci lii wax ne ni charte ngëm yàlla mi ngi ci yow mooy nga bëgg si réew nag waxdor wa ala anfusikum ne na ngeen préparer seen bopp na ngeen moytu seen bopp na ngeen moytu seen bopp min al ci lépp loo xam ni fitna la wa ma yuaddi ilayha ak lépp loo xam ni fitna day dox jëm ci loolu al fitnatu naimatun la'ana allahu man yaqadaha yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne fitna daal ma ngay nelaw waaye góorgóorlu leen ba bu leen ko yee wax min unaasin nee na. moytu leen min unaasin. nee na moytu leen ci nit ñi. unaasin ay nit. ay nit ñoo xam ni. daxalu fi waatanina hada. dugg nañu attention déglu leen nag xutba bi nee na def leen très attention ci am na ñoo xam ne dugg nañu ci Sénégal gii. bi ismil islaami. dañuy woote ni ñoom dañoo taxaw taxawaayu ay jullit lañu. wa hum akfaru min namrudi. nee na gis nga ñooñu. namrud nga xamante ni gis ngeen li mu def ak ni ko histoire nettee nee na ñoo ñoo gën a dangereux nam yadxulul fitnata baynana li ñuy def seen pexe mooy dugal ci Sénégal ay fitna ay jaxase ba réew mi li ñu bëgg mooy taal mu tàkk wa yaibu diinana li gën a doy waar mooy ñuy ayibal di salteel di tilimal suñu diine wa qaadatina yemuñu foofu ñi ñu yaakaar mu ñu suñu sëriñ ñuy wax lu lu ñaaw jëme Tuubaa di wax lu ñaaw jëme Nimzaat di waxe lu ñaaw jëme ko ci waawan ak mboolem këru diine yi yamuñu foofu sëriñ ñu ñu yaakaar ñuy wax lu ñaaw jëme ko ci ñoom na kaan ñoom li ñu bëgg seen objectif mooy ñun li ñu nekke woon suñu papa yi gëm ko suñu maam yi gëm ko loolu la ñu bëgg a dagg loolu la bëgg tilimal loolu la ñu bëgg a naxasaay moo xam ci charia bi la nee nañ ñun suñu bos baaxul bu dee sunna bi la nee nañ ñun suñu bos baaxul wal ijmaa ak mboolem téere yi nga xam ne borom xam-xam yépp ci ànd ñu ci àtte wal islaam nee na ñun niñ koy doxale noona baaxul wa yaquluuna lana la tubayiu li ñuy wax daal mooy bu leen jaayante ak ñoom bu leen bu leen jébbalu ca ñoom wala yakunu lakum cheikhun bu ñu am ay sëriñ ñun bu ñu am ay ñun maanaam li mu bëgg a wax mooy ñun ñi ñu topp ñuy def ñu def leen suñuy sëriñ ñun nan leen bàyyi matuñu ñu sëriñ